donc j'ai bien dit euh, ma résumé ayib est dans ses justice moom moo ñu jox dëgg ne nañu intégré Ousmane Sonko bu xëyee war a jëli fiis yi candee la ce qu'il a à mooy mu toog jox ñu ay fiis mënu ko na lii moo tax nekk parce que il est payé par l'argent du mhm. contribuable maintenant le cas de Bassirou Diomaye Faye mais attends nous on une entité politique on a le droit d'avoir plusieurs candidats rien ne nous interdit de l'avoir bu ñu mënee am 10 ñu am 10 mu nekk am nañu capacité parrainer 20 on parraine 20 candidats y' a pas de problème de parrainer Bassirou Diomaye et de Ousmane Sonko parrainé nañu Bassirou Diomaye mais Sonko da nga jox fii tam ñu parrainé ko au finish ñun on décidera. sauf que plan B mosul nekk suñu mbir. nekk suñu mbir Ousmane Sonko est notre candidat il restera notre candidat la preuve mooy lu ñu doon wax partout où le droit sera dit Ousmane Sonko sera rétabli dans ses et il candidat. très bien actuellement la ne. très bien.